ko rajo. Ah? wala artiste. artiste. artiste. Góoru Diop. damay Góoru Diouf. Góoru Diouf. looy woy. gaan doo ko jox micro bi ah. baay. woyal ma xool moom fi comme bi. programme ñoo ko moom. ma woy nag. koo way léegi wayal lekk kan koo bëgg a way waaw wayal racine raari waaw raari eh, layaana ma raari yee jikaama mori yoo am jikaama mori yaa yéen ba yéen fi ngeen dëkk xam ngeen ci li muy wax dégg ngeen ko bu baax aw leen ah dégg tëng ah booy doo ko jël déggoo gars yi gaan guitare rek moo fi manqué bilaay waroon naa am guitare ñu xam ni gaan bi artiste play mu ngi taxaw ah waay waay cung bi bu ñëwoon rek mais gaan foo nekkoon yo wool waay jam jega ah séeréer Serer kabuk say top. Serer kabuk say. Au au au. La la la marario di cama morio. Jambara Serer jambara ref. ah waaw waaw. am jéggi noo tudd baay nga ne.